asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dama ne bu ci si noonu nekkul woon kenn duñ ci dégg waaye nit ku ne la am nga droit topp ca tànk ba ba teg loxo ca la la réer wala nga jàpp sàcc bu ko yor mbàkk yu fay dañ koo tuuma. ci suñ alal plus de trois cent milliards yoo xam ne ci aéroport Yoff bi la xaalis boobu ba nëgë ni waa trésor public mënuñu laa expliquer ne nii la deme beneen coow la ca des lii nga xam ne am na wakam fi Ablaye def statut boobu ay milliards yi milliards yoo xam ne ba nëgë mi ngi gàllu ci doq Mbacke fay ku nit ji ñu ngi dëmm nag ngay seeñoo yaxi liir bu neexee nit am ñaaw njort ci yow mii ndax Mbacke Faye xam nañ la ci réew mi nga juddoo nu juddoo fi du ndey nga nu gën wala baay ëppoo nu jom dàq nu liggéey nu ñi nga xam ne kenn taqalu nu ci suuf kenn taxaluñu ci lenn loo xam si état bi laal na ko kon nun sunu jaan wàcc na waaye yow mii ñu tuuma nga xëy di seeñoo yaxi liir dama ne warga ngaa expliquer askan nu mu demee lii xew ci jumaa ji du dara dul political science course du dara dul ay cours de politique science képp moo fi am lépp nag sukkandiku ci ay manipulation yoo xam ne teguñu ko fenn mais heureusement que les Sénégalais seen niveau psychologique ne pa di tout ba basse gàttul gàttul gàttul déedéet le niveau n'est pas bas ay nit lañ ñoo xam ne xam nañ li xew xam nañ naka la xam nañ leen réew mi ameel xam nañ li war loolu réew mi waaye dara gënu di gàcce ñëw ba ci biir jumaa taxaw fa di wax loolu dara du ci dëgg dama ne jubóo gi Abdoulaye di jubóo ak Macky Sall ci biir jumaa ji xaalis bu toll nii war naa mën a génn tax mu war génn mooy yàlla taxut yonent bi taxut ay sàcc ay bandi yoo xam ne bëgg nañoo manipuler yoonu murit bi pour occuper ko awale ci Macky Sall rawale ko waaye askan duñ ko nangu xaalis bi nga jël Mbàkke Fay moomoo ko ba mu génnee ci say poos booba la gendarmerie taxaw takk la yóbbu yeew ba nga dëgër mu jël la yóbbu ndax koppar yi moomu ko te suuf yi ñu la jiiñoon war na ko mën a lijjanti mbaki Faye dama ne magoonu sutoo ñu dàqoo ñu liggéey gënoon a guddub tànk Mbacke Faye mënoo fa yor un mili ay milliards ba ci maye milliards kooku dama ne ku fa taxawoon ku ne xam nga ne alali sàcc la dama ne ku fa taxawoon ku ne bu woon naa fekkul xam ne kii c'est un vaillou c'est un vaillou il a infiltré le mouridisme or qu'il est un franc li fi nekk nañ ko ñi ngi nii taxaw lii daal du dara dul ay manipulation moo tax kilifa yi diine yi nañ jël seen mbokk teg ci seen wet nañ jëli borom yi xam-xam teg ci seen wet te mooy ñii nga xam ne alali àdduna képp leen yëkkati surtout ay franc yoo xam ne dañuy làqooy tarixa yi di toj dëkk bi di sonal nit ñi mbaki Faye mi jubut xool mu jàppee loxo Macky Sall bi di ko forcer Ablaye Wade ni mu jàppee loxo Macky di ko forcer Ablaye boppam lay defaral Macky Sall xam na ne ab sàcc la Macky dara wumpu ko ci li ma ci naqari kay Masaalikul Jinaan doon juma néegu yàlla ñu jël ko ñoom def ko central boo xam ne politique ak manipuler moo tax ñu di ko fa def man moo loolu moom moo ca metti waaw te am naa lu mu wér ne sëñ Tuubaa bëggewu ko nii am naa ci lu ma wér te man na ñeme naa wat ne sëriñ Tuubaa mi tax ñu tabax juma ji bëggewu ko nii waaw ku ci ay bël ku ci ay bël demal nga lekk ko ak say bokk waaye demal nga lekk ko ak say bokk waaye bu ci posone nit ñi mbàkki fay riba baaxul mbàkki fay lu léwul baaxul mbàkki fay lii nga def ak nii nga ko defee ak ñàkk teggin mënu koo paase mbàkki fay xamoo xaalis déedéet xaalis boo ko xamoon sax danga ko sutural waaye sol ko ci ay wulis xeex xeelu ci tëj ko muy milliard nga sol ko ci walis ñëw di ko jébbal di ko joxe dama ne bu doon lu lew du demee noonu xaalis bu lew banque lay jóge xaalis du dem ci saaku mbàkk yu fay bu doon lu lew dëgg dëgg dëgg dama ne ab chèque ngay bindee joxe wala nga dem ci banque bi def benn extrait boo xam ne ñoom buñ ko jotee mën a dem ñu wiireel leen ko extrait de virement bu normal waaye sol ay saaku ci ab xaalis di ko ànd ak Macky Sall dama ne yàgg Macky Sall ci ngóob mi ngeen nekk troisième mandat boobu ngay wax ak di ko gëmloo murid yi murid mu ñu ko murid yi dañ laa weddi dañ laa weddi dama ne troisième mandat boobu nga naan sëñ Tuubaa ànd na ceeg ah maam Maodo lu nga tudd ko fi dama ne Mbàkke fay torox nga mënoo fexe teew li nga woote xeex nga woote lu da ngaa woote lu xeex ndax kat boo bëggee pousser Macky Sall troisième mandat yow da ngaa bëgg direct ci réew mi waaw réew mi nag ñun ñëpp a ko bokk li nga wax lépp dara du ci dëgg. waaw bëgg nañ seen Tuubaa fonk nañ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nekkatu fi noo fi ne kon réew mi kenn du ko defar ko dul noonu bàyyi leen sëñ Tuubaa mu noppalu yoonam nekku ci waaw xaalis bi nga sàcce nag bii kon na laa woo mu leeral ci Sénégalais yi ndax Sénégal yëpp am yu dut Sénégal yëpp am yu dut ñu di ñu ndëm ngay seccoo yaxi liir loolu nga fi def de waaw loolu nga fi de un milliard koo génne di ko maye defe naa ne treize jours pile war nga fa fay impôt lu bon bon bon na trois ba quatre ba cinq milliards ah da xool géej gi ni mu toll ah Macky Sall ay milliards un milliard deux milliards lay wax de. dama da ngeen xool ñaata bato mooy napp ci géej gi am licence am licence te bénéfice yi Sénégal am mu tudd deux milliards benn Sénégal nekk ci biir Sénégal yëkkati un milliard maye ko dama ne gendarmerie leen liggéey man mi nag duma ci dara. waale laa ci am sañ koo laaj loola képp a tax mu ubbi sama gémmiñ bu doon sa alal joo doon ci sa baay sama gémmiñ doo ko dégg mbàkk yu fay dama ci am wàll samay doom am ci wàll sama njoor am ci wàll sama gémmiñ dees na ko dégg waaw comme jéñ nañ la trois cent milliards ci aéroport bi ba léegi ni dara leeru ci nga xëy génne un milliard di ko maye loo xam ne mënuñu ko am ci géej gi billaay mënuñu ko am ci géej gi waaw jënd kopp un milliard mun ñu ko am ci géej gi te tubaab bi jënd leen yëpp yóbbu yow nga ñëw di sa rondal génn fa ay wuris yoo xam ne un milliard génn na ci nga maye ko dama war ngaa leeral suuf soo ko am si kon noo ngi jégalu te ñaan jàmm te naan asalaamaaleykum wa